وآله وسلم فأنا في سبيل التراكم فنحن في ضيقهم ولن نرجو فارجا مقبل يمن سوى الله والهادي لسوء المكارم صدقت على ما كنت في قود دين ما سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في قول ديننا حريبا كما في البرق يا خير الراحم إلهي فتحا أهلنا أهل كربة وأهل اتباه سنة في التراكم نعود عليها بالنواجس مثل ما bihi ala fi isa ila daratul qasimi waaye sopp yonent bi joxal sa borom loxo bi te baal naa ko baal naa ko yàlla yàlla boole baal jot ci ginnaaw ajibun taafatun hadi mahabatu تساتبا كل سيئات من الرحمن وسلي يا إلهي وسينا أبدا على محمد وجبه وواجب ثابت هذه محبته كساتبه السيئات على محمد انا مصارف الهدام وويس نفخ على حب بلا امال وتابحا سنه مهترقا وسليا يا الهي وسيا أباد أنا محمد المختار في الانقلاب وليس نفق حلا هبل إلى أماله وتابحا سنة المعترفة وسليا يا إلهي وسينا أبانا على محمد المختار في الانقلاب وكثرة الصوت لحيا لسيدنا من القلامات قام سكتة وصلي يا إلهي يا يا أنا محمد المختار والهدى وقصد سكري ثم نصرة دينا ثم نصرة دين man musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine suman musuratu diine ndaya ka bayo diine suma nusrato diine kulli janni sayayo diine suma nusrato diine kulli janni sabayo diine suma nusrato diine nasir الحق diine بدق بالحق وقت الهاد الحق يلي ما يتاري حسن كل ده تبي الجنة diine yobale say jabal yobale say doom wasal yi ko riyo bakkula may njaabar bakkoosa may njaabar moo tàbbi aljana bokk ak ndaay ak baay bokk ndaay ak baay bokk ndaay ak baay bokk mam Maodo kaw te aas ay waa xam du dey lii la Maodo wax te Maodo ay waa xam du dey mam Maodo kaw te Maodo ay waa xam du dey daf ko teg fu wër diine la ak xaadis yu wër diine la muy alquran ci diine la ak xaadis yonna ci diine la muy alquran ci diine la ak xaadis yu wër diine la teg ca ijma kon de Maodo am na lay diine ci boo soppee seex bi yow bala ngaa dee doon wàllu mam mam doo kaa wax wala ya moo taama yuhibbu sayxaana diina inna isaasa kulu yum ndox dina diine bokki sampaloo àndal may bi aljana bokki sampaloo àndal may bi aljana bokki bi àndal may bi aljana bokki soppinaa bi àndal may bi aljana boo kii soxna a ànd ak mbayta bi alja boo kii dayra bi ànd ak mbayta bi alja boo kii sampaalo ànd ak mbayta bi أتى كان مسرورا يقال كالمسكون كمال للمسكون كمال للمسلم كمال للمسكون كمال تبقى جدينا كمال نودي سكين كمال جيكينا كمال ثم ديوكو مسكون كمال ويما تبارك كمال للمسكون كمال للمسكون كمال ليل بي دايا كمال دين مسكو جور كمال ليل بي نوت كمال دين مسكو جور كمال دان خجري نا فال كمال نبي سجير نا كمال جدي نا فال كمال لو ما دي يوكو كمال مي ما تي بارا كمال دين دكو يوكي دين مسكو جور كمال يا جرا دان نبي جرا ما كمال يا جرا ما كمال نبي جرا فال كمال يا جرا دان نبي جرا ما كمال يا جرا ما كمال نبي جرا فال كمال kamala ngir bunu tantal sobe nabi di ko màggal kamala ngir bunu tantal sobe nabi di ko màggal kamala mag ñari ñaan ay kamala buy rëy kaam ay kamala jigéen musu ko gis moo jara màggal na bee jara màggal kamala wasaliyani ya ilahi wasiyana abada ana muhammadan al-muhtar fi al-qidam تعوسمه والإساس حين تسكره وحب القرآن وأرقى باللهم وسلي يا إلهي وسيا أبدا على محمدنا المتابع الخدام إن الله رانا هو الميزان تقرب منهما هويت منا العهد وسلي يا إلهي وسيانا أبدا أنا أنا المختار في القدام وسليا يا إلهي وسيانا أبدا أنا أنا المختار في القدام وسليا يا إلهي وسيانا أبدا أنا أنا المختار في القدام جيجان جباق نانغو مونيال muy cëram sëriñ ba mooy cëram saa war déwéle masagaay nangoo mu ñal ba Maodo si mooy cëram jigéen ju baax nangoo mu ñal sëriñ ba mooy cëram saa war déwéle masagaay nangoo mu ñal ba Maodo si mooy cëram amiin sa doomu gene kawe toni badal ko dik landa ngeen ko wax nango mu yam sëriñ barke mooy jaram faawa dewe nango mu yam am suman barke mooy jaram jala mam mawdo sowe mam mawdo be candar sowe mam mawdo be candar sowe mam mawdo bir dakar sowe tiwawan ambale tas suul ko ay jigéen ju baax nangoo mu ñor seen nga barke mooy jërëm baawa newee nangoo mu ñor mam Usmaan barke mooy jërëm xam-xam bu wér bi yaa ko yor xam-xam bu wér bi yaa ko yor dinañu sell ñu yaa ko yor yoonu Tiwaawan wi dootul faydu sama mam as ak ay ñoñam jigéen ju baax nangoo mu ñor seen mooy cooram faawa dawele nangoo muñal maam Usmaan Barke mooy cooram roy leen ci maam faawa dawele roy leen ci maam faawa dawele borom ngëneel yi am loole wa tax tuuram wi simfule naka bur yàlla fay xooloon naka bur yàlla fay xooloon jala waxee moom say mu amaan في متى قومة النمر ومسا ونويلك يا روح في تصديقك ما يعلم يدوب أغنى قومنا سرين بركة ويجرم